Euh, lu am solo ak jaar-jaar bi nga xam tamit def na ko rawatina biir li TV mais tamit dañuy ñëw ci pay-per-view ñi ko xamul à 100 pour cent mooy pay per pay-per-view moom mooy le paiement à la séance Vous déggee paiement à la séance Mon mooy tey ben événement amna, na nit ki ñëw fay benn pour accéder à l'événement donc day xaw a ak système bi nga xamante ne moom système vidéo bo xamante ne dañuy def VOD payante mooy comme tey Netflix lu muy proposé mooy tey da ngay ñëw mu tegal ay benn vidéo ben film tey mon nga ko ñëw jënd tey keneen ñëw jënd ko suba keneen ñëw jënd ko ginnaaw suba donc du nekk même moment mais pay per view c'est li nga xamante événement la événement la benn séance la boo durer deux heures de temps doon direct wala trois heures de temps wala 30 minutes wala 15 minutes nit ki ñëw paye fay pour accéder à ce contenu là loolu moom mooy euh, pay per view ñu tàmmali au Sénégal le 31 mars 2018 ci événement bi nga xamante mom mo nekkone nekkoon diggante Gris Bordeaux ak Balla numéro 2 euh, ñaareelu pay per view bi mu nekkone diggante Balla numéro 2 ak Modou Lo après boobu ba léegi ñu enchaîné yu bëri Gris de Guiers 2 Boy Niang Gora Sock Fils de Balla modulo Lo sen Sène euh, Boy Niang Lac de Boy Niang Tapha Tine euh, Boy Niang Balla Gaye euh, bari na Gris Bordeaux Balla Gaye ëpp na ëpp na fu mu toll nii ëpp na 32 33 événements yoo xamante ne Buzz Pro tey am na ko en terme de pay-per-view. tey tey bu ñu nee pay-per-view rek sa xel day dem ci Buzz ndax ko.

man Ibrahima laa tudd ñu may wooyee Buzz mais structure bi tudd Buzz Pro mais structure Buzz Pro bi tey du Buzz rek moo ci nekk am na ñeneen ñu nekk ci ginnaaw ñoo xamante ne tey peut-être fësuñu mais tey ñu ngi ciy liggéey liggéey bu ëpp solo sax liggéey bu bës bu ci liggéey bës tey amaana tey interface la nii rek mooy nit ku jàkkaarlook tey Sénégalais yi di leen jaay benn produit di leen accompagner ci benn pour utilisation de benn produit mais am na ñu bëri ñoo xam ñu ngi ci ginnaaw ñoo xamante ne nit ñi xamuñ leen mais ñu xarañ lool ci liggéey bi te mën naa lu ëpp solo ci liggéey bi sax ñoom ñoo koy def. làmb fi mu toll tey nit ñi tey ñu bëri nii. Euh, li nga xam te mooy euh, lu mu tudd day yàq làmb loolu noo ko gisee. pay de view day yàq làmb loolu xam nga peut-être ku ci nek il faut nga am déggin ci ban côté la ko waxee nga jéem comprendre ban côté nga la ko waxee nga mëna tontu côté bu ko waxé mais tay euh, pay-per-view de yak làmb peut-être nit ki mëna am xalaatam ci ben côté ñu nangul ko xalaatam mais ñeneen ñi tam mëna nañ jàpp ni pay-per-view day défar làmb donc loolu c'est une question assez vague bo xamantene day laaj den débat bu approfondi mais bo ci tontuwee ni rek au pif mëna nga ci xaw a quoi. mais ñenn ñu ne maanaam euh, pay per boog làmb bi ñu xamoon bu desee 3 mois 4 mois dañ koy waxtaanee garam place yi parking yi tout da nga koy waxtaanee làmb jot tàkkusaan jot nga toog sa télé jàkkaaroo li nga mooy làmb dund ambiance dund làmb ba su passe tamit même la même chose tamit da ngay toppaat tamit ci li nga xam te mooy commentaire làmb di ko commentaire mais léegi ñu ne pay per day dem sax ba léegi yow maanaam doo xamante sax maanaam làmb kañ la war a am. waaw waaw waaw léegi man doo dama lay bëgg laaj rek tuuti quoi. ñu yaatal ci côté boobu noonu euh, Balla Gaye numéro 2 ak Gris Bordeaux mooy premier pay-per-view boobu 2018 la woon mais 2017 est-ce que yaa ngi fàttaliku combat am 2017 est-ce que yooyu yaa ngi koy fàttaliku. est-ce que yaa ngi fàttaliku 2016 combat yi am est que yaa ngi koy fàttaliku 2015 est-ce que yaa ngi fàttaliku combat yi am hmm? ah, dama la bëgg maanaam dama bëgg ñuy def benn jàngat mooy est-ce que at yi ma la limal yooyu grand combat amoon na xoolee. ci la balle Gaye di defé gaday ñu bëreetul. mais mais mais laataa boobu man maa ngi fàttaliku 21 mars 2010 diggante balle Gaye 2 ak modlo non ñëwal 2010 dafa sori ñëwal ba 2013 2014 mais dem légui bo joggé da ngay taxaw 2014 diggante 2014 ak 2018 wax ma combat yu magi fi am wala diggante 2015 ak 2018 wax ma combat yu magi fi am. te amul paper non non waxuma la waxu amul pay per view moy ba diggante 2015 ba pay per view bu muy ñëw. wax ma combat yu mag yu doon dund mu neex làmb dox loolu laa bëgg nga wax ma maanaam <laughs> li ma la bëgg wax ci loolu moom mooy làmb deewoon na làmb deewoon na bu yàgg làmb nu mu deewee woon mooy sponsor yi dañu quitté woon làmb sponsor yi dañu bàyyi woon làmb parce que bo xolé dafa mën sponsor, sponsors yu mag yi fi ay opérateurs téléphoniques accompagné 2012. 2013 nak ci la Aziz Ndiaye décroché sponsor opérateur téléphonique Expresso. En 2013 ba 2014 mu and ak ñom liggéey ba presque 2015 mais en xolé 2006 ak 2017 tay ci à mbeur yépp commencé chômer ci la lamb commencé rare bëri wuñu ay 2 ans 3 ans mbëri bëri jël voyage dem sponsor yëpp teggi tank amatul dara promoteur bo tëggee lamb fu mu toll ni sponsor amo billetterie parce que lamb dafa tàmmoon nek ci direct bi direct direct direct direct légui mujunte les vrais amateurs làmb dematuñu won lamb dañ doon tok seen kër ndax direct yi da nga doon sétane li nga doon sétane télé bi sax doko am lamb ja mais balle Gaye de Gris mo moo lamb te pay per woon boo fàttali ko Balla Gaye Gris Bordeaux 2018 te loolu liggéeyu presse en ligne la parce que loolu Lutte TV da ciy liggéey liggéey bu am solo muy Babacar ak Lamine ci lañ defee série bu tàng jër ci Balla Gaye de Gris do fekk ko foofa ca fa muy entraîné. waaw Balla Gaye Gris Bordeaux fi Gris Bordeaux takk ci kaw ball Gaye Balla Gaye tàkk ci kaw Gris Bordeaux combat boobu am communication boo xam kenn mësul gis lu mel noonu làmb fa la dekkwee c'était le retour de Balla Gaye numéro 2 làmb fa la amee lu mu mosul am ci àddina mooy stade bu fees dell pour Sédar Senghor waaw léew Demba Diop ñaata place la mille place nee nañ yenn saay bu feesee day jël 20000 bu feesee del ba gars yi lo day jël film Léopold nekk 60 000 places jour bo mën na 50 000 personnes ñu ngi ci biir Léopold kon tay promoteur bi am gis bopam ci billetterie gis bopam ci pay-per-view donc tay pay-per-view mayaat na fit promoteur te question bi ma poser nak pay-per-view day yàq laamu yàq laam ni ngay dem talal ay micro ay promoteur la wala ay mbeur la parce que man mi indi produit bi man duma ma apprécier parce que man suma waxé rek ñu né sama produit la mais promoteur bi teug doguma la mais euh, li ñu ko laaj taxaw fi nii pay per bokk na ci lu yàq la. waaw mais taxawaat na wax leneen. taxawaat na ne fu mu ko moom la njëkk a démarré. waaw taxawaat na itam wax ni ko moom ni mu ko doon waxee ni mu ko bëgg a waxee ak ni ko nit ñi déggee bokkul waaw moom maanaam tey bu sañoon maanaam affaire bi dem ci télé yi ñëpp seetaan mooy yow des fois sa kër am jafe-jafe nga ne nañ wàññi suur. des fois kër gi am jafe-jafe nañ wàññi soo des fois dañ doon dem vacances tey ci île du Saloum yi yenn saa yi ñu doon dem vacances di noos di dem ay Magic Land ak yeneen ak yeneen léegi ñu commencé salaire bi wàññeeku wala jafe-jafe àdduna ñëw ñu ne xale yi léegi mëntuñ dem vacances nañ toog ci kër gi donc jafe-jafe day am mooy jafe-jafe moo indi woon tey ñu bañ a def direct télé mooy balaa pay per view di ñëw dañ ne léegi bu ñu def direct télé pour nit ñi di ñëw stade waaw mais léegi tey bu ñu mënee fexe ba tey. jafe-jafe jooju ñu tekki ko parce que teggi ko parce que direct moo dàq quoi ñëpp toog seen kër seetaan direct bi maire yeeg paa yi ñëpp toog seetaan mais bu ñu ko defee promoteur bi perte après du tëggaat làmb mais xam nga loolu itam xel nangu ko donc Luc tey boo gisee fu mu doon waxee moom mooy nañu fexe sponsor yi ñëwaat même bu ñu am pay per ñu am benn système de pay per view mais sponsor yi dellu si waat te yaakaar naa ni tey Luc def na déclaration boobu mais quelques semaines après toog na signé ak Beuz Pro voilà donc yoyu je pense que ñu wara léral la moy nit ki dina am ben avis ci ben moment mais avis bobu mu am téwul ñu gën gëna léral avis am te teewul xalabul pay per view parce que ñëw na liggéey ak wa pay per view muy wa Buzz Pro. ku ci mel sama cameraman bi di IB moom fi mu dëkk dëkk Fongolimi touba Toubacouta ndax euh, ñu gis manam da ngay tok ci biir kër sax nga am problème connexion kooku nga bëgg ko jëndaloo paas ci pay per view

non loolu moo tane ñu bañ a am làmb ñu am làmb ñu am làmb moo gën ñu bañ a am làmb léegi nag ñu am làmb nag ñëpp seetaan ko moo gën lépp mais léegi loolu moo indi TNT ñëw bokk si TNT nag léegi am na ñu bëri am nañ ko ci Sénégal donc loolu dañ koy utiliser ci pay-per-view loolu indi léegi tam benn sponsor ñëw ne jën naa droit yi may naa ko fii ci Sénégal donc loolu itam dafay yombalal li nga xamante ne moom mooy eh, am mbir yi parce que léegi ñu bëri ñu ngi seetaanaat làmb parce que sponsor yi ñooy jënd droit yi donc tey objectif bi nga bëgg yow yaa ngi koy am mooy tey nit ñi di mën a seetaan làmb ji di avancer ñu ngi koy am waaw na ñaan yàlla mu gën a perfectionné wu rek gën a baax. loolu jàpp ni moo waral sponsor yi daw dañu am liñ bëggoon ci visibilité dem seen yoon wala dañu jàpp kat dafa am lu tax. no àdduna dafay changé àdduna dafay soppeeku. ceer yow ci rajo nga tàmbalee mm-hmm. mais tey leer na la ni lutte Sénégal mi doole bu mu am rajo bi amatul doole boobu parce que bu njëkk ba rajo yi bariwul woon mm-hmm. mais léegi xoolal fréquence rajo yi nu mu bëriwee voilà bu njëkk ba émission rajo yi ñoo doon bomb mais léegi digital dafa récupérer doole bi dama lay jox exemple bu ndaw bul sori mm-hmm. YouTube nga nekk nii lutte Sénégal mais boo seetloo bu nekkee yaa ngi gis say revenu YouTube ñaari weer yi ci ginnaaw li nga doon am ak weer bii li nga am dafa ute dafa divisé wu par deux yaa ngi gis loolu kon léegi am na lu xew xaw ma na xam nga ko xaw ma na xamuloo ko mais toujours dafa am yu changé YouTube bi doole bu mu amoon jamono ji YouTube bi sax mu ngi wàññi doole fu mu toll nii parce que lan lu tax am na yeneen yu créé wu muy TikTok TikTok léegi ñu bëri fa la ñuy seetaanee ak yeneen ak yeneen yu créé wu donc àdduna day changé. te ci àdduna nu muy changé nag nit ki dang koy nangu moy tay ñun bu ñuy nekk fi nekk lamb lamb ji dafa doxoon football bi demewul woon noonu mais léegi xoolal football bi dafa commencé di am ay centre de formation centre de formation ñu produire ay jeunes ñu am talent jeunes yooyu noonu nag dem di voyager mooy ñoom Sadio Mané ñoom Gana Gueye ñoom ñëpp ñu bëri ay avant bu njëkk ba équipe nationale tey pour nga amoon effective jour yu bëri yu nekk à l' étranger suñu joueurs yi ay Ligue 2 lañ doon nekk mais léegi dañu am joueurs yu bëri yu nekk au niveau ay Ligue 1 ay championnat Angleterre ak yooyu donc loolu day récupérer benn doole ci làmb ci transfert yu ci football bu njëkk ba théâtre moo amoon théâtre yi bëriwul woon c' était pas assez professionnel mais léegi dafa am ay série ci série yi mu am ay placement de produit mooy da ngay gis ñuy série ba ci yàgg ci biir série bi jékki-jékki rek kenn ñëw ci biir série bi ñu scénariser yow Thierre ñu teg la ngay poser ay questions ak micro lutte Sénégal fekk lutte Sénégal dafa fay pour am loolu visibilité donc sponsors yi ñu ngi orienté wu vers d'autres choses sponsors yi jóge nañ ci lamb ji parce que dañ ci doon def xaalis bëri jël seen xaalis tas ko ci yeneen dem yóbbu une partie ci football dem yóbbu une partie tey ci li nga xamante ne moom mooy moom mooy série télévisée yi dem yóbbu ci part une partie ci ñoom leen defal seen propre communication mooy les réseaux léegi ñoom dañuy def une communication massive sur les réseaux sociaux donc lu ñu doon jaar ci làmb ñu ngi koy mën a jaarale feneen donc seen xaalis budget bi ñu doon jël un milliard di ko def ci làmb dañ koy mën a tasaare ci yeneen levier yu leen di permettre ñu gën a gaaw progresser donc loolu day bokk ci luy retarder loo tey sponsor il y a une affaire Du bruit de dégg ñuy wax du c'est parce que le sponsor aujourd'hui il ne trouve pas la rentabilité à investir un certain montant dans la lutte Si vous un promoteur bi lay par exemple 100 millions vous nga calculer 100 millions mën nga ci financer yenn séries yu toj wala quatre séries yu alors que série YouTube, noonu tay day dox deux épisodes par semaine hmm? di dox ci télé bi télé bi ñëpp diko sétane ak jigen yi rek koy à 90 mais tey da ngay seet da ngay seet ni ko boo doxalee benn série da nga koy da nga teg ñëpp seetaan ko télé bi nga rediffuser ko ci YouTube bi mu am 2 millions de vues mm. te làmb fii mun na fi face à face ba mu am 2 millions de vues tey li fi am 2 millions de vues mooy combat la te day fekk benn site rek dugal ko ci lay am deux millions de vues alors que chaque épisode day am 2 millions de vues wala 1 million de vues pendant 32 épisodes donc nañ xam ni nañ xam lan mooy faiblesse bi faiblesse bi moom mooy dafa am ay yeneen mbir yu gën a attractif làmb yeneen mbir yu gën a dox làmb aux yeux des sponsors léegi ñun nag ban liggéey la ñu mën a def pour làmb léegi ñëw concurrence ak ñooñu loolu moo jar a wax ci liggéey yooyu noonu ci lañ nekk mooy dem jël benn booy aada faas ju dawloo ko mu daw ci benn corniche xaw a génne image bu rafet dem jëli ji ay bébé jën et tout léegi sponsor bi moom bu gisee loolu day ñëw gis ni mën na fi def placement de produit léegi ban beneen mbir boo xamante ni itam c'est intéressant mooy jël site ak Papa Sow ñu joué leen genre mini film léegi ñu ngi commencé léegi di digitaliser le contenu di jël contenu mu bañ a nekk rek yem ci bés ba mbër bi ñëw def face à face def combat ak blouson sponsor mais léegi sponsor bi sax mun nañ ko dugal ci ay placement de produit donc loolu mun na indiwaat sponsor yi petit à petit

un événement am dañuy perte mais ñun on juge bien sûr day événement yi ngay gagné am événement yi ngay perte mais ñun on juge dans la globalité des fois nga perte xaalis et tu es très content parce que tu as progressé techniquement parce que ñun le challenge avant qu'il soit un challenge financier c'est un challenge euh, technique mooy ñun balaa ñuy waxu xaalis na génnee xaalis ne na dox ba pare techniquement. mu nekk lu nga xam te ne bii promoteur yëpp macha allah ko ci gis rek bu combat bu baax rek. di yob nako ci li nga xam moy paper vie pour am lu nga xam te bi mën nako ci gagner di waxaat tamit sponsor yi nañ ñëwaat nañ xam tamit làmb dafa am solo nañ gëna a taxawaat bu baax a baax jàppale promoteur tamit nee la promoteur mom ak baykat ñoyam ndax promoteur day jël ay millions def ko ci ay ay champion tok di xaar bis bu rafet kon koko tamit ku ku jara jàppale ku jara tamit euh, teg loxo pour mu gën a bu baax baax